aici, salam alaikum. Uh, mă gândesc ñëpp prezentul tur ak sant man maa ngi tudd Ndeye Diaw la présidente des albinos de Kaolack ki jiite pune yi dëkk Kaolack. waa li sabab jate bi mooy uh, avant tout damay présenter sama association uh, ANAS le tudd association nationale des albinos de du Sénégal jiite ñu Bamba Diop jiite ñu ñu sos depuis 1996 man ma adhéré ci 2009. ba nëgë ni euh, ñu àndandoo nag di liggéey liggéey bu rafet li sabab ndaje bi mooy euh, ñun dañoo am lu ñu naqari ci benn côté parce que euh, dañoo nekk xale di liggéey ci association bi di màgg di percé ne amoon suñu centre centre boo xamante ne gouverneur bu Thiès moo ñu mayoon benn kii nii benn terrain boo xamante ne fa mu nekk ay garab ak ay guy ñoo fa nekkoon li ñu amoon ci xaalisu projet bi matuñu woon ñu dagg ko ñu jël foofu bàyyi ko dem jënd suñu terrain bopp tabax ko comme centre benn centre bu ndaw boo xamante ni après naa dañ yónnee kii mu matul woon dara ñun suñu président Bamba di jënd ay terrain di ko yokk ba mu mat ni mu toll euh, ñu tabax ko R plus 3 def ko kii bu mag euh, centre bu mag boo xamante ne ci suuf clinique la ci kaw ja kii la euh, jàngukaay internant ak dortoir ak fi ñuy toggee euh, loolu yëpp li ko sabab mooy pour puune yi comme ñun suñu communauté communauté puune yi nekk à l'aise mën di jàng ñu mën ñoo toppatoo ñu jékki-jékki ba ci yàgg am beneen association boo xamante ne dañoo ñëw ne ñoom ñoo moom centre bi ñoom ñooy membre fondateur u ANAS te man sànq leeral naa leen ne depuis 2009 maa ngi bokk ci ANAS mais mosuma leen a gis fu ñu participer wala fu ñu bokkee ci ANAS ñun nag euh, lii kenn digaluñu ko ñu ñoo ko xalaatal suñu bopp ñu defal ko suñu bopp parce que dañoo yàgg di liggéey di xeex pour puune yi di dox ci seen éducation di dox ci seen santé di dox ci seen lépp ba ñu yegsi fii ñu yegsi ba ñu toll fii ñu toll kon buñ ñu jékki-jékkee rek bëgg ñeneen ñëw taxaw bëgg aakimoo suñu centre bëgg ne ñoom ñoo moom suñu centre Euh, affaire bi day doon waar Bamba job ñun mom lañu xam moñu jité depuis biñuy xalé moñu jangal moñu jangal moo ñu Bamba Diop day jël xaalisam diko def ci pone ñuy fay di fayal sen jang di len jappelé jàppale euh, di gor góorgóorlu ci ñom kon buñu jék jéké né ne Bamba Diop imposteur la da fay am ay xaaliss yu muy lekk ainsi de suite ñun lool daf ñuy jaaxal loolo waraloon ñun ñu wo presse bi pour waxtaan ak ñom wax leral waa jamono ñi kii waa Sénégal ni ñun kat xamuñu lenn lu ñaaw ci moom Mouhamadou Bamba Diop mi nga xamante ne mooy président puune yi nekk Sénégal leeral ñëpp ne ñun Bamba Diop la ñu àndal moom la ñu xam moom la ñuy àndal ba nekkee xale ba nëgë ni si man depuis 2009 laa ko ci association bi ba léegi Bamba Diop laa xam moom laay àndal en plus euh, li ñuy naan fekkee dafa neex. lépp ñun loo xamante ne def nañ ko def ba mu job def na ko ñoo ànd defandoo ko lépp la ñu fekkee lépp lañu gis kon ñun gisuñu fenn foo xamante ne am na fa ay njuuj njaaj ju def lu waral euh, yenn communauté bi yenn parti ci communauté bi génn di am ay accusation yi waa ñu delloo ñu ko puisque euh, xale yi nii ñu bari fa lañ doon jàngee ñun association Pune yi nekk Kaolack nous sommes au nombre de euh, cent 128 et quelques Euh, nga xamante ne ñun euh, ñenn ñi ngi ci village yi comme tey dafa précipité moo tax ñëpp ñëw ñenn ñi ngi ci village yi ñenn ñi ñu ngi euh, ay côté Proxaan kii nii Nioro ñooñu léegi ñoom ñëpp foofu la ñu waroon dem jàngi ci demoon nañ ba commencé jàng deux ans ñu jekki-jekki problème yi ñëw ñu tëj centre bi xale yooyu dem toog instant bi am envie dem jàngi bëgg dem jàngi te li waral ñun ñu bëgg ñoom ñu dem jàngi foofu mooy

président Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre ñu dimbali ñu ñun li waraloon ñu yaakaar leen ba teg leen fi ñu jéem ñoo dimbali lii ñu def ci justice wax ministère de la justice mu jug ñu dimbali ñu ci puisque am na loo xamante ne lu ne fàng kenn di ko jeex ñun depuis bi ñuy xale ba léegi ñu ngi liggéey pour la bien des albinos lépp lu suñu mbëbët ñun mooy na puune yi nekk ci jàmm ñu xëccoowuñu xeexuñu dara ñun na puune yi nekk ci suñu ja nekk seen jàmm rek mooy suñu priorité

bu administration provisoire amee kon waru koo jox kenn caabi ji mais instant bi sax ñun loolu suñu problème lii suñu problème mooy na justice def liggéeyam ñun ñu delloo ñu suñu centre gannaaw ko ñun ñu ñooy ciy liggéey depuis fort longtemps ba nëga ni ñun lenn rek lañ bëgg accusation ñu teg ci kaw Bamba bu mu mënti doon ñoom nañ xool bu dee am nañ ci benn loo xamante ne dëgg la te man leer na ma ne bu ñu xoolee du ñu gis lenn loo xam ne dëgg la bu dee am na ci lenn loo xam ne dëgg la na yoon def liggéeyam mais ñun leer nañu ne Bamba Diop il est clair et net il clean amul benn problème ak yoon centre bi il ci à Thiès Sampaté Sampaté 2 waaw ñun li ñu bëgg ci gouvernement bi ci gouvernement bi lenn la mooy mu taxawuñu jël lii nii euh, ñu def ci yoon jël centre bi seet ñi ko war a yoon ñu yor parce que xale yi ñun puune yi ñu xale puune yi ñooy suñu pri ñooy suñu préoccupation parce que ñoom ñi ngi ci àll bi seen yaram yi ñi ngi yàqu seen i bët ñi ngi gën a yàqu parce que naaj bi day yàq suñuy bët suñu condition ñun boo nekkee ci yenn environnement yi mënoo cee nekk ci jàmm ay feebar moo leen di dal ak yeneen léegi nag ñun liñ bëgg mooy ñu ñëw dem ca jël centre bi teg tegkaat ko suñuy loxo ñu commencé waat jàngal xale yi yoraat seen santé yoraat seen éducation yoraat seen lépp parce que ñun loolu la ñu xam loolu la ñu yàgg a def jàppale puune yi centre bi ibbu na ba commencé woon ñu ciy jàng ñu jékki-jékki ferme ko ba pare nangu ko suñuy loxo instant bi am na am nañ ay équipement yoo xamante ne yónnee nañu ko lépp yoo xam ne moom la ñu war a équiper centre ba mais munuñu ko installé suñu liggéey yëpp dafa taxaw suñu activité yëpp taxaw te dara waralu ko lu dul benn loo xamante ne on comprend pas léegi ñun looloo waral ñun ci suñu initiative bopp ñun kenn digaluñu ko suñuy initiative bopp ñu ñu jug ne dañuy wax ak état bi wax ak waa Sénégal ngir ñu dimbali ñu ngir yàlla ñu seet li yoon ñu teg ko jox ñu suñu gëdd delloowaat ñu suñu centre suñuy puune mën a jàngaat ci jàmm ñu nekk ñun ñëpp ci jàmm non dañ ko jël jox ko parti adverse bi waaw mais kenn jàngu fa instant bi kenn jàngu fa kenn def fa benn activité mais ñoom ñoo yor clé bi abonné ci Feeling 221 ngir mën a am ay xibaar yu wër woo Feeling 221 un cœur de l'information.